dafa fexe nu mu bokkee pour bokk waaye Idrissa Seck satellite la rek du palais c'est un satellite du palais. mais sa dernière la dernière sortie d'Ousmane Sonko. Euh, la la république d'Idrissa Seck. dama ne lu tax nit ñi di bàyyi xel ci Idrissa Seck. ah waruñ ko bàyyi xel. Idrissa Seck Sénégal jox nag li mu ko war a jox lépp. Mhm. mais respecté wul Sénégalais yi. Idrissa Seck bu ñëwee taxaw jàkkaarloog suñu confrère mu laaj ko mu ne ko je ne veux pas descendre au même niveau de vie que vous. kon xeeb na xeeb nañu xet na 17 millions de sénégalais yëpp. parce que ku xool nit xamuloo kii lu muy dundee xamoo fan la dëkk xamoo yan condition la dëkk kan mooy kan mooy ay waajuram. Mhm. xamoo ndax yow say waajuram waajuram moom tas ku xibaar ay waajuram lëm liggéeyam waaye ay waajuram ñoo la ëpple mhm. ba ñuy yor yow yoroo xamuñu xamuñu la nga xeebee ko noonu moom xet nañu ñëpp. kooku ku ko fal mais amaana musiba la kooku bu ñëwee ba taxaw ah, ne. bu fekké ni la bëgguma don sen président té xamul ni sénégalais ñoo bëggatul mu don sen président cantoné le symbole le plus fort de la tortuosité politique nekk di muusante ak mbëkkante defe naa ne bu yàggee sa bopay toj ndax da ngay fokk ni da nga muus ba gëna a muus ñëpp te instant bi ni mm-hmm. jàpp nga baal ma loolu moo ko dal <laughs> Idriss Seck bo gisee ni muy waxee Idrissa Seck boo gisee ni muy doxee. ay lamay lek lamay solo. fa dem deuk Saint James ak ay nangam nangam. kooku nga foog né amna xel ak khalaatu xalaatu né da fay transformer le visage de Orefondé. et le forcing bi mu def sax pour 10 Ousmane Sonko. non je dis non je dis encore une fois non non en réalité il prêche le il prêche toujours le faux. dans un discours teinté de vérité pour amadouer le Sénégal parce que moom si Walpam, pam gis nga ko même ba ba bindaat ba ñuy bind alquran ah euh, euh, kii nga xam ne moo di moo di xaw ma xaw ma xaw ma ko ma kan Ousmane gis nga danoon wax ni nuñ ko bindee euh, kii bu ñëwee tari baat bi neex baat bi bu neexu ñu ne dañ ko dinga kay bu àndee baat bu neex ñu ne bii la ñuy dugal comme si foo ko ni on avait réécrit le Coran. comb c'est-à-dire que ñëw taxaw naan ay bakka ay makka ay kenn xamul. Hmm. taxaw fii xas fi président Macky wax ko lu ko neex.

gis nga nga am dix mandat wu mo Sall moo gën damitu mandat idriss Idrissa Seck et le F24 par rapport à la troisième euh, candidature du président de la République Macky Sall est-ce qu'il a yaakaar nga euh, ñom am dayo bi wala sax am li nga xamné ne nek euh, ki bi euh, euh, ñu koy waxé sax pour mëna contre contrecarrer li nga xamné mo nek la troisième candidature du président de la République Macky Sall bien vrai on a vu la mobilisation mais aussi gis aussi tâche